di siyaare mbooleem jullit yëpp ak taalibe yëpp di siyaare mbooleem seexi sëriñ Touba yëpp xam ngeen ne tey jii ci dibeer ji moo yemoo ak ñaar fukki fan ci weeru muharram suñu diggante ak bis bu tedd ba des ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñu toog nii ak comité d'organisation bi yor wàllu màggalu Touba ci njiitul cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak mbooleem ñi mu seqal liggéey bi ñépp ñu jot ndigal ci sëriñ Touba cheikh Mouhamadul Mountakha ngir toog fii fas yéene tàmbali waajal bis bu tedd boobu bis boobu nga xam ne moom la cheikh Abdoul Ahad waxoon ne nan koy gàttandu di ko dalal di ko gunge ndax mooy sunu fête indépendance ngir waajal loolu nag. moo tax sëriñ bi dajale ñi mu seqal liggéey bi ñépp ñu fas ci yéene yëkkati ay kàddu ki nuy njëkk a jox kàddu gi nag moo di sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde faatma su yëkkatee ay kàddoom ba noppi Cheikh Mouhamadul Bachir dana yëkkati kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci comité d'organisation bi jëm ci mbooleem koo xam ne yaa ngi waajal màggalu Touba te di ko bëggee. kon ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib toogaat fii ci kanamu sëriñ Basiiru waxtu yi nag ni si daaw niñ ko defe woon euh, baaxoon ko def ay ati at mu doon ak cant bu rëy bu euh, jóge ci mbokk yi yépp ñeel suñu borom ak sëriñ Touba mi nga xam ne moom lañuy liggéey di wax rek ne sëriñ bi comité d'organisation bi niñ ko baaxoo defee ñépp laxasaayu nañ ngir jëm yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba fas yéene taxaw ci sa ginnaaw ànd ak yow liggéey bi nañ ko baaxoo di defee ak matuwaay yi ci war a yépp ànd ak nag euh, naka jëkk ñu ko daan defee ñu ko daan ñu ko daan àndal ñu ko mas di àndal waaye ak euh, taxawaay yu bees yoo xam ne yu gën a dëppoo ak jamono la ak euh, contexte bi nga xam ne moo am ci àdduna pandémie bu metti ci yàgg lool daaw ba ren mu nekk fii euh, jaaxal ñëpp waaye nag yàlla suturaal nañu daaw ñu taxawa ko nañ ko daan taxawoo yàlla def ci ndam ñuy rafet njot bu baax ak ñaan yi fi jàll ak taxawaay yi jàll yépp ne ren ji ci lay gën a euh, tegoo ci aw yoon buñ ci dollee expérience euh, xam-xam bi nga xam ne njàngat mi nga xam ne amoon nañ ko ci daaw buñ ko ci ngi rafet njot bu baax ci ne tegu ci aw yoon ñëpp daal ñu ngi lay xamal ñi sa ginnaaw fas yéene ànd ak yow liggéey bi incha kon ginnaaw kàddu yooyu ñu daal di maase déglu nag euh, sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite liggéey bi. ginnaaw kàddu yi sëriñ Ousmane yëkkati wax na ñëpp takk nañ seeni laxasaay fas yéene ànd ak moom nañu ko defe woon daaw ñu defewaat ko nu ko raw di ci ñaan dimbalul yàlla ak kàttanuk Cheikhuna Ahmadul Xadim kon ñun ñëpp ñu maase déglu Cheikh Mouhamadul Bachir bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlaana muhammadin al makin wa ala wa saxbihi zawi ridwaani wa tamkin bokk jullit bokki taalibe yi ngi leen nuyu bu baax a baax di leen dileen di leen ndokkeel kàddu nuyoo kàddu yi cant ak kiy ngërëm yu bàyyi ko ci ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi jëmmi Sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér suñu bam dolli ko wér ak kàttan ba naal yu rëy yi mu am te dara génn ci lislaam dara génn ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni ko bëggee ñu fas yéene dellu fii nag niñ ko baaxoo defe ci waxtu wi bu màggale Tuubaa gi desee diir bi ñu toog fii ci ndigalam ndax màggal gi liñ ciy def lépp ak lépp lu jëm ci yoon bi rek moom mooy boroom ndigal li mooy boroom xalaat bi mooy lépp sañu see seq benn jéego walla ñu def ci benn xalaat te bàyyi ko ci moom kon ñii wax nañu wàññi seen kàddu ñu ngi jeexase suñu wax ji wala bu fekkee mënuñoo ñàkk waxtaan ñu génn ci biir saal bi nit bu bu ko bu ko dara taxee jug da koy fullal waaye ne ci biir kër Sëriñ Tuubaa wala mel ko ne ci biiru marché loolu dëppootu koy teggin te kër gii kat waxtu ne ma di ko fàttali ñi fii ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu koy def kër Sëriñ Tuubaa positif bu rëy rëy la ko defee woon moo tax ñi ko xamoon sax daawuñ fi solee daal la ngir xam kër gi mu toll ak baytin bii mu làmboo kon loolu mën nay bàyyi xel lii ñuy def itam du mbirum àdduna mbirum positif la di mbirum Sëriñ Tuubaa ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa la loo xam ne moo ko santaane liñ am lépp ñu am ko kon nag ku ci dugg positif ak jiite aku sellal nga ci war a demee ndax boo ko deful rek nax sa bopp ngay def te le Cheikh Mamadou Fadil daa wax sëriñ Touba nañ ko dugal ci roog seen ndax nit yaakaaram du ko foyee kon ci ndigalul sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp ni ko sëriñ Ousmane Mbacké waxee ci tàmbali bi te bu waxee wax na ci turu mboolem kuréel gi nga xam ne ñooy saytu màggal gi yëpp ndax ba nga xamee ne a Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké tegoon na ko ci sama loxo laa waroon mbooleem njabootu Serigne gépp boolem ko fi nekk Serigne ngay yëkkati ndaw boole moom moom mii boobu Serigne moo booleeg moom ñi ci des ñëpp noonu la demee ba liggéey bi daj ci mboolem kër Cheikh Serigne ngir xam ne Serigne Touba noonu la doxale yoon bi mënuñoo tàggoo. moo tax ñëpp ñu dugal leen ci ñëpp ànd ko ngir liggéey bi gën a mën a jag boobu ba na gën itam at mu jot ñoom ñëpp ñuy gën a def yitte di def poste bi gën a def taxawaay ngeen ko mboolem ko fi nekk Serigne Touba daal seere leen kon fi ñu tàmbalee wax ji rek ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy ndokkee ñëpp ci at mu bees mii waaye di siyaare ñëpp ak a fàttaliku bis bii ndax bisu màgg la. <laughs> ndax ci la Serigne Touba ñibbisi woon Touba te Cheikh Mouhamadou Moustapha andi woon ko fi kon bisu màgg na buñ ko tànnee tey tàmbaliwaat ci liggéey bi ñuy bëgg a def loolu mën naa nekk mubaarakul ibtidaa yi <laughs> kon yàlla nekk mooy mënul intihaa yi ci barkeb ki ñuy liggéeyal bis bi kon bala ñoo dugg ci li waral bis bi muy màggal gi Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon na ne mi ngi nuyu àdduna sépp bayuur kenn rawatina alaalamu yi bépp bayuur kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la seqal réew mi bayuur kenn rawatina nag bokki kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk mission bi ñuy def te suñu borom diggee ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na mi ngi jokk bokk lislaam gi ci ñépp bàyyiwu ci kenn teen di jokk bokk gi bokkuk lislaam gi ak bokkuk der gi ngir xam ne liggéey bi ñoo moom ñoo ko ànd te kenn ku ci ne la la war ci sa digg moom ci rafetal ak jokk yaa ngi koy def kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant kilifa diini yëpp di jaale nag ñi nga xam ne bàyyi ko nañ fi mooy suñu kilifa bopp yi fi bàyyikoo ci biir yoon wi xam ngeen ne moo ko limee sax dafay juum waaye ci kër yu mag yi xam ngeen ne am na suñu ay waajur suñu kilifa yu fi bàyyi ko ñëpp sëriñ bi moo leen taxawal boppam mi ngi leen di siyaare di siyaare njaboot gi di ko siyaare waaye itam di siyaare kilifa yi diine yi nga xam ne bàyyi nañ fi ñoom itam di ay kilifa ci Sénégal ñoom itam fenn fu ci ne sëriñ bi bu ko mënoon moo fay doon boppam waaye yónnee na fa ndaw ñu teewal ko fa ngir ànd ak ñoom naqaroo kon mu ngi siyaare kilifa diine yëpp di masawu itam ci ñaar yi nga xam ne moo fi benn bi di mooy mbas mi nga xam ne sunu borom moo ko wàcce ci kaw suuf mu ngi ci masawu àdduna sépp rawatina ñi ci ñàkk seen bakkan waaye nag nañ xam ne képp koo xam ne faatu nga ci biir mbas ci li lislaam wax shahid nga mooy attab ku dee nga ca xare loolu kon kenn ñaanu ko yàlla waaye ko ci faatu itam wala taxsibanna llaziina qutilu fi sabiilillaahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun rek lañ koy jàppe farihiina bimaa aataahumullaahu min fadlihi kon mi ngi nuyu kilifa diine yëpp bàyyiwul benn tarixa nag waaye day mel ne kon bu tànnee sëriñ Babacar Sy Mansour bi nga xam ne mooy alxalifatul am di tarixati tijaniya tudd ko ci tuddaale nag këri diine yépp bayur kenn muy suñu mbokk yu tedd yi nekk Kawlax di njabootu alxaaji Abdullahi Ibra alxaaji maam Abdullahi Niass ak di waa suñu mbokk waa Njaasaan ak njabootu Cheikh Omarou Fouti ba ci njabootu laayeen ba ci suñu mbokk waa Canaba bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim sax da ngay juum li wolof di wax naan fu lim fàtte waaye kon buñ ci tuddee suñu Babacar Sy suur eh, ala raasihim tuddaale nañ ñëpp di ko santit bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne waxtu ne mi ngi koy yëkkati ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci rafetal ngir bëgg lu gën a dëgëral bokk gi ak lu gën a dëgëral diine ji kon sëriñ baa ngi koy sant moom itam di ko gërëm di gërëm it ki kilifa diine yépp ci seen taxawaay ci réew mi ak ci seen taxawaay ci musiba mi suñu borom wàccee ci kaw suuf muy mbas mi moom moom mi mënees na ci wane taxawaayam ndax àdduna sépp xam nañ itte ji mu ko jox ak taxawaay bi mu ko jox kon ñu ngi koy ñaanal mission bi nga xam ne doon na ko ci ay magam doon na ko ci ay waajuram doon na ko ci maamam yàlla dimbali ko ci mu àggale ko ba lépp ni mu ko yéenee ndax daaw nag ni daaw sëriñ bi yónni na fu mu wax kàddu yu rafet mu wax ne waxal Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko ndax xam ne gépp kàddu gu dégg te méngoowut ak kàddu gu rafet bàyyi ko fii bu fi tuddoo bokk ci njaboot gi te xam naa ne li am fii mu am foofa loolu waxu ko yam ci waaye mi ngi koy jëfe kon sëriñ baa ngi koy sant waaye ni mu ko sante it ne la sant ñëpp ndax kenn ku ci ne cër ba nga ko war a sedd sédd nga ko te desul dara kon fii àdduna si toll mbas mi li Cheikh Mouhamadou Taxa waxoon rek mooy li ci am mbindeef mu suñ borom yabal la ñu ne ñuy ay mbindeef yàlla fum ko jaaroo rek fare jaar Cheikh Mamadou Mountakha taxaw ci ci réew mi taxawaay bu mat sëkk loo xam ne lépp luñ ci war a taxawe def na ko ba matal ko sëkk ci yëkkati alalam joxe digal taalibe yi rawatina waa Touba ca kanam ñu àndoon ko ak waa dëkk bi ci ñiñ quarantaine noonu ndax xam nañ ne jafe woon na ak mbooleen taalibe bu ci waay man rek lu ci waay man nga ànd koo ñoom ngir dellu ci aaya bi suñ doon wax ne li yunfiq zu saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq sëriñ boo xam ne xet li mu ngi ci képp lu ci jublu man ko leeralal wax ne bi ma demee ci géej gi damaa meloon ne ku ñu ko amee xeetu lakk ko lañu ñu bàyyi xet ga ci sama loxo képp ku mu nuyu ku ne ne ma may ma lakk ko lañ am lakk ko lañ waaye xawma nekk a kon nag li li ak jom ci man daan fexe ba wuti nag koom mu ne waaye booba liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëw na ci nabiyul mursal ñëw ci malakul muqarrab kon ba mu dem ci géej gi dafa laxasaay boo fekk na mu am daraje xutbaaniya daraje xutbaaniya xam nga ne ci la daraje am waaye mu wuti loo xam ne ba àdduna sosoo ba léegi nii kenn mës a gis sëñ Tuubaa daf yàlla defal te simple la yàlla dana ko joxaat kenn daf ko kon loolu wet boo ko lamb rek gis ko fa loolu li nga xam ne la ko suñu doon defal kon mu dem laxasaayu dem ngir xetti li xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa te wax na ne beneen bi bu ko defutoon nasaraan bi danañ not kéefër kéefër dana not lislaam ci kaw suuf te bu boobaa ñëpp danañ tàbbi sawara tës képp koo xam ne daal ko Sëriñ Tuubaa da ngaa jaayante jaayante gi mooy istara minal muminina anfusahum wa amwaalahum benn kon bis bii nga xam ne lépp lu ñu am moom lañ ci lañ ko amee te Sëriñ Tuubaa moo digle woon ba liggéey bi matin ndax waxtu wi saa su ma saan agsi ba mu nekk ca nattu ya la muy métti métti saa su accès suñu borom dana ko tegaat natt yu gën a métti yam ko tegoon te da koy yëg ni ko nit ñi di yëge ba ca njaarim nag soriwut lool 1920 21 dafa am ay wuute nag waaye soriwu ko ndax loolu itam li ko indi dañoo wax ne sëriñ bi bu mu koy jëkk a màggal ca at mu jëkk ma booba siiwalu ko daa xëy rek suñu borom xamal ko na nattu yi jeex ak paye ci des Serigne Touba tàmbali màggal gi. yéen ngeen gàtt ba mu ci njëkkareen suñ Serigne bu Bousso joxoon ko ko addiya ba mu cee jox ndigal it yebal Serigne Balla Fally wax ko na woo fere yëpp yëgal leen ko kon Serigne Touba moo santaane ne bis bi yëngu sax ci taalibe yi ndax da ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi àggsee nag ma sant la yàlla kon bis bi ndigalu Serigne la. loo xam ne da ko fonkoon lool ñi xam taarix ñëpp itam xam nañ ne bis bi saa su masaan agsi ci njaarim fu ne nit dana fa togg ay ñam indi ko ci biir kër bi boo sëriñ bi sëlmale tisbaar génnee ci jàkka ji xool teraanga yëpp wax na dañ ko séddale ba njaarim gépp rek kon loolu mooy màggal gi kon nag loolu dara lu mën a dox suñ digge màggal gi ci àdduna amut ndax Euh, suñ bakkan bañ koo fekkee moo ñu gënal bañ a jëfe ndigalu suñ Tuubaa ndax bakkan moom lu mu yàgg yàgg yàgg bu dundoon téeméeri at tam bu xasee ba dem mel na la moog lu mëstaam ñooy am bu dul lu jëfe lu baax ndigalu sëriñ Tuubaa nag euh, defarug àdduna ak defarug àllaaxira lañ ci yaakaar kon amul lu mën a dox suñ digg màggal gi sëriñ Tuubaa moo ko santaani woon daa ko def di ko ànd ak ñëpp bari na lool ci ay mbindam itam ba muy nekk ci géej gi junj na ne Touba gii la koy defee nawaytu sukurahu la daa di salaam wa inda Touba yi bi gis mi nu kon képp koy xam kuy wax rek xamoo histoire waxaat na ne katabtu yowma shabti inda galwa bahda jihaadi wa firaaqi balwa alhamdulillahi allasi qad raada li al wa saaqa li axraada fustu لدى قلوى وعند بأفلي بما به أنير كل ما أفلي am na ci foo xam dafa wax ne alayya shukruhu la daa daari salaam wa inda tubaaya bi jisminu xilam am na foo xam dafa wax na indahuma wa inda daaratil minan kon yooyu yëpp lu firndeen ne la Sëriñ Tuubaa fii la ko yéene woon a def te Sëriñ Tuubaa neex na neex goo xam ne lu ci naan na mu ko bëggee rek noonu la ko suñu borom defare ndax waxoon na ne ci njaarim la ma suñ bonom wane li nar xaw sama ginnaaw boo lépp mu ko kon nag loolu noonu la ko Sëriñ Tuubaa santaani woon njaboot gépp maaso woon ci di ko ànd ak moom ba yàlla def Sëriñ Tuubaa ñibbi si ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko njëkk a wuutu ci ab jataayam wéyale ko na ko Sëriñ Tuubaa daa digle ba suñ boon def mu ñibbi si ab liggéey mat Cheikh Mamadou Farid door ko andi fii ci Touba kon loolu mooy histoire màggal gi kon nama ko waxee woon daaw bu ko Cheikhul Xadim Xadim wutoon muy ndigalam Cheikh Mamadou Moustapha santaani ko muy ndigalam Cheikh Mamadou Farid njëkkoon koo xalaat sax doy nañu sëkk wóote ko ndigalu Sëñ Touba kon loolu foofu la pëseefu taali bi àgg kon nag ñi ciy wax ñàkk xam. wala dugg ci lu seen yoon ndiwut ndax ñañe waxal digluwuñ leen màggal gi kenn ci am sañ-sañ mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa nag amul jotug di diglu ñi ci biti lam war a def xam na ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ni ma ko waxee woon daaw bépp responsabilité bu mu war a jël moo ñu mag fuuf ëpp ñu xam-xam fuuf gën ñoo ragal yàlla fuuf gën ñoo jege Sëriñ Tuubaa fuuf gën ñoo engagé ci mbirum Sëriñ Tuubaa foofu kon kooko gën ñoo xam-xamu xam-xamu àdduna kon ndigalem rek lam daa wax rek fale ñëpp war a nekk mooy sama kilifa dama koy bàyyi sama jëmm bàyyi ko jëmmam waaye nag àdduna la Sëriñ Tuubaa waxoon booba dafa woote Cheikh Ibrahima Fatim mii jëwriñam ma nga woon ci jataay ba sëy moo laaj sëriñ ma sàmba ne ko ndax ma sàmba ndax ñëpp ñëw nañ suñ ma sàmba ne ko mbàkke ñëpp ñëw nañ de mu ne ko waaw loolu de woote dëgg ñëpp wuyu si la ci de yàlla mayu ko bopp mayu ko rasul kon du ko may kenn waaye nag nañ xam ne fa in yakfur biha haulaay faqad wakalna qawman laysu kon ñu sant yàlla rek mii nga xam ne moo ñu fekke moo ñu may ñu fekk waatatal ko wax ji nag timis yi xaw nañoo jot waaye faw mu xaw a gudd tuuti ndax tolluwaayu jamono ndax alxuraan boo fa demee da ngay dégg ne waskur fil kitaab yi Mariama waskur fil kitaab yi Ibrahima waskur fil kitaab yi Ismaila innahu kaana saadiqal wa'd waskur fil kitaab yi Idrisa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafa'naahu makaanan aliyyan kon dafa bëgg ñuy fàttaliku ñi fi jaaroon. njabootu Serigne Touba gi nag ki ko jëkk a wóotu mooy ak Cheikh Mouhamadou Moustapha war nañoo fàttaliku ci moom njàmbaar ga ak fit wu rëy wa ak doggu ko ci liggéey Serigne Touba ba taxawal yoon wi ni ñu ko taxawale tey te la ci jiitu mooy raay bi mu indi Touba te loola lam ci jubloon mooy bëgg ñépp xam ne mën nañoo demal seen bopp yemu ca. mu xam ne ku bëgg moom sa bopp faaw nga moom sa bopp mu góor ay dëkk yu bari woote ay toole àllarba ngir liggéeyal ko Sëñ Tuubaa ci jumaa ji mm-hmm. ànd ko njabootu Sëñ Tuubaa gépp yëkkati leen teg ca kaw danaa ci joxe menn misaal mu gàtt nekk na ca Taïf mook soxna ay ak soxna may muuta soxna may muuta te ñooñu xam ngeen ne ay rakam lañ te xam ngeen nim nim nim ñoom ci at waaye ñu jëfandiku ba noppi mbubbam la jël jox leen ne ngeen fomp ci neen seen taalibe bi la kon foofu la àggoon ci Pastef ba Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ñëw bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ñëwee wéyal liggéey ba ca na mu ko fekkoon Cheikh Mouhamadou Moustapha def yitte ak jom gori dëkk sancaati daara lépp jëma ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi tabax sax mos noon koo def ba jumaa jàgg ànd ko taalibe bi yëpp yokk dëkk bi moderniser ko marché Ocass bi indi tëli yi indi fi ay forage ubbi dëkk bi ba yoon wi mel nii tey kon ñoom seenu njàmbar ak seen yitte kenn ku ci ne marqué nga sa jamono ndax ku ci ne ci liggéey Sëñ Tuubaa lañ doon rawante ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw bam mu dikkee itam wéyal na ko Cheikh Maodo Faat defoon yaraat nit ñi tàggat leen yar leen ci dëgg ak laxasaayu liggéeyal Sëriñ Tuubaa dox ci pëstéef ba organisation ba mu mel nii mel tey somb fi somb yu rëy mooy li mot li ci jumaa ji daari kamil université bii Cheikh Mouhamadou Mountakha di àggale ak tëli yu bari ci dëkk bi ak forage yi nga xam ne kenn mënu koo lim ak defar nag nit ñi raxas dëkk bi setal ko ba mel nii mu mel tey ba ñi mu juddu di tàmbalee soixante quinze jim suuf xamuñ na tuuba cigarette ak yu ne demee daana fi am kon ñoom ñëpp seenu njàmbaar noonu la bel ba ci Cheikh Abdou Khadim Mbacké ñëw xam ngeen ne yàggu fi fukki weer rek benn la fi am ñu toppoon ci ginnaaw Cheikh Abdou Lahad ñu ànd liggéey suñ Tuubaa bi. sëñ Abdou Lahad daan wax ne maa ngi sëñ Abdou Khadim ba yàlla di boole dafa dàq seetaan dinañoo boole. bañ bàyyi ko fi ak Cheikh Saliou Mbacké ñëw motli seeni naal sosaat yeneen naali boppam te jiitu mooy lii am tey ci dëkki ba ñëpp di ci jaaxle muy mbënd mi nga xam ne am na. ba lu ëpp téeméer nit génn seen kër danaa ci ñëw ci kanam ndax ci lima ma sëriñ bi yónni la bokk sëriñ Saliou moo njëkk a xaalisam def ko ci assainissement bi tàmbali ko ci dëkk bi kon bu ñu doon xool ci histoire nit ko moom dëkkam yëkkati infrastructure bu bu toll noonu def ko ci dëkk ci sëriñ Saliou lu jëkke kon Sëriñ Tuubaa suñ borom may na ko ku mujj rek. def lu sa morom defutoon mooy bassin bi ngeen dégg ci kër ñangi tey loolu lépp Cheikh Saliou Mbacke moo ko defan ci àll boppam te wóotewu ko woon sax ak yeneen liggéey yu bari lim àggali ci jumaa ji àggali woon daaree université bii nga xam Cheikh Abdou Lahad tàmbali woon na ko ba ñu ubbi ko ba daaree alxuraan ji tàmbali ak daaree xam-xam ji ak yim def ci nit ñi ci xel koom lim yóbbuwaat nit ñi pëseef. ci seen digg ak Sëriñ Tuubaa ci xasida yi ba Sëriñ Tuubaa defal ko ci ndam loo xam ne dafa ànd ko xilaafam mu liggéeyee fi Sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ne kenn xamul toll jógee fi bàyyi fa lu ëpp fukki milliards fukki lo dafa mel dañoo noddu de des na lu loolu lépp di ay ndam yu yoo xam ne lañ ci war a jàngi rek mooy la wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak yëpp boo déggee ma di la ko jàngal mooy bëgg nga dolli ko gëm dolli ko ak waaru ak xam fi nga teg sa tànk ba yàlla dafa Cheikh Saliou Mbacké liggéey fi Sëriñ liggéey boo xam ne ba àdduna kenn du ko fàtte mu mel ne la Serigne sa Serigne Tuubaa waxoon ne wa habliya al saxiixa wal amal as saalixa allasi yukammilu al amal Serigne Tuubaa matale ko ci moom ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw njëkk wóotu Serigne Touba ci ay sëtam bi mu dikkee itam lim njëkk a wane rek mooy ñëpp li njëkk a jàngate ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mooy Serigne Touba xilaafa gi moo ko yorul boppam ndax jamono ju doomu Serigne Touba nekkut kenn xalaatu ne nit mën na caa ne ba noppi di am jàmm waaye yàlla def mu wóotu leen ci ni mu gën a rafete benn la njaboot gi. xam xam le ne waa kër Sëriñ Tuubaa yi lépp moom ñoom ñoo ko bokk ànd ko ñoom àndeen wa gën a rafet réaliser fi ay réalisation yoo xam ne lim fi nekk ëpp ñetti waaye bari na muy ci jumaa ji ak tëli yi nga xam ne def na ko ci penc yi jiitu woon muy Daaru Xudoos kër Sëriñ Suhaybu Guy Mbind ak Daarul Minam ak yeneen naal yi nga xam ne bàyyi woon na ko fi ak yi nga xam ne jot na ko fi def ci dëkk bi ci yu bëree bëri delloo siit it ne waay juróom meloon rek fu nit jaaxle ci àdduna mu jàpp ne moo ko war a saafara kon ñoom ñëpp yàlla leen suñu borom fay ci barke suñu Tuubaa mu bàyyi koo fi ak Cheikh Sidou Mokhtar ñëw moom itam ba mu dikkee fa kilifaam ya tegoon tànkam mu wëyalaat liggéey ba mooy fulla ja pëste fa yitte ju kawe ja bëgg suñu Tuubaa ga doogu ga mas sama toog mu wax ne mu wax doom yi ne leen na ngeen xam ne duma leen fi bàyyil benn dërëm ndax li fi ñëw àlli Sëñ Tuubaa benn dërëm duma leen fi bàyyi lépp lu fi ñëw rek na dem ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi moo tax juróom-ñaari at yi fi am ku ne xam na jëf na fi loo xam ne mel na ne jëfi ñaar fukki at la ndax foo romb ci dëkk bi rek da nga jàkkaarlu jëfam jumaay Tuubaa ji firndali ci Masaalikul Jinaan jee xam nga ne somb loo xam ne Serigne Saliou Mbacke moo ko xalaatoon ngir wax ne jàkka boo koy def ci dëkk na tolloog darajee kapital ba <laughs> waaye Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla def pàkk ba sottee ci loxoom président Abdoulaye Wade bi fi ne woon joxoon ko ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara teg xeer wi yàlla def mu bàyyi ko fi Cheikh si Moussa tàmbali liggéey ba. ba liggéey bi àgg mu bàyyi ko fi Cheikh Mouhamadou taxaa Mbacké ñëw wuutu leen ci jataay ba ñoom ñëpp nag doyloo woon ko ndax laxasaayu gi mu laxasaayoon topp ci seen ginnaaw mës amu bëgg mës amu bañ waxtu ne dama koy seer dama naan ànd na moo du mun taxaa ci liggéey bi lu jege fukki at cheikh Mouhamadou Lamine Bara wala cheikh Sidi Moukhtar mosuma faa yónnee ba ma wax ko dara mu am ca xalaat ba jàppoon naa ne sëñ bi amuti xalaat ndeke kenn ëpp koy xalaat ci àdduna loolu positif mënu ko weesu te loolu mooy wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari kon yàlla ko fi suñu borom dëgëral ba mot li sombam yu rëy yii somb yu nag xam ngeen ne sombam yu bari na ndax dafay fekk ay somb yu rëy. mu àggale ko ba noppi sumb sumb boppam muy université bii nga xam ne na kilifa mu jëkkee defoon rek ndax Serigne Touba ba muy woote njaareem dégg ngeen lam ca waxoon wax ju gudd la da ko digaloon taalibe yi ne lépp lu ngeen di sombati di leen ko defe nii moo tax ku ci ma a yëkkat dara raay bi tubaab bañ koy wax moo du mu Moustapha jàppoon nañ ne gàllankoor lay doon ci liggéey jumaa ji waaye moo xam ne Sëñ Tuubaa tëlewul dara Cheikh Mamadou Fadil noonu moom itam xam ngeen ne fa mu tolloon ci jamono ndax moromam na war maalal moromam lam gëm loola nag bokk na ci li koy sàmmante moo tax lii nga xam ne mooy jàngoro ji kon bu ko ñi dawee te ñi dawuñ ko yi du sotti kon day mel ne cim xel sax ku ko ku ko gëmutoon sax ngir sédd adduna ak sédd aqi dëkkandoo rek war naa tax nga di ko wattandiko ngir bañ lool kenn ndax ka ka koy daw te yow dawoo ko yaa ngi koy yóbbu fitna ndax mooy bu lu bëggee daw mën naa indi mën naa indi fitna boobaa te loolu bokk ci li rafet rafetal ak dëkkandoo kon kuréel googu itam professeur lemin Gueye moo ko jiite moom ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam bokkoon na ci ñi jàngal ñu bari wàllu médecine ci senegal nañ ko defe woon daaw ren ñëwaat nañ siñ bi yeesalaat ndigal ñu ànd ko comité bi suñu Ousmane ànd kook ñoom ak daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy seyti jumaa ji ak li ko wër ñoo ko ànd ndax xam ngeen ne foofu mooy barab bi gën a jafe ci fi ni bi daja ndax ñëpp fi leen moo leen tax a jóg jumaa ji leen tax a jóg ànd koy it ak commission bi yor wàllu santé bi nga xam ne Serigne Cheikh Abi moo ko ak commission communication bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé moo ko jiite ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la làmboo mboolem taxawaay bu ñu ci defoon daaw ngir yeey nit ñi ak bàyyiloo leen xew fi àdduna toll. luñ ca man danañ ko defaat tey ñaan suñu borom defalaat ci ndam lu ëpp lam ñu ci defaloon daaw kon loolu itam ñu ngi koy soññee di fàttali it bala ma génn ci wet googu li wër jumaa ji ñi fi ñëw daaw am na yu fi xew yoo xam ne indi na ay coow ndax nit ñi léegi yi xew internet yi da leen a fab bi dafa fab bi ñëpp ba dañuy dikk ba ci jumaa ji war a siyaare war a teewlu jumaa ji ku fi ñëw waroo sax seetlu ay caméra wala ngay wut ko la photo waroo koo tal dangaa war a am na ñoo xam ne bu ñu masaan ku mel ne suñu affaire bu so fa ci dëkk bi bari na am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu masaan daanaka fi xaw a toll kon ne si boobu amagut fa la ñu toll siyaare fa sëñ bi ngir warmaal ku baax ki kon dugg ba ci barabu Sëñ Tuubaa nag yoru sa appareil di filmer maa ngi ci barabu Sëñ Tuubaa loolu ay teggin fekke fekkewu ko yi ci xewoon daaw ñëpp gis nañ ko kon waa daayira Muxaddamatul Xidma ay jàmbaar dëgg ñoo ci ne ndax ñoom bu nit ñi di màggal seeni kër di toppatoo ña ngi fa bàyyi seenu njaboot ne ci jumaa ji kon ñooña ñëpp war na yoo xam seen taxawaay waaye na leen ci nit ñi la ndax nit ñi itam da ngay def junni yu baax def lenn ñoom te ñu fàtte lépp te doomu aadama du mat kon nit ñi nañ leen di jàppale ci kuñ gis xam ne col nga col gu jaaduwut wala mel nga melokaan wu jaaduwut ci war a agsi foofu ñu fexe ba téye la wala ñu yóbbu ci ñoom ndax kenn nit wala junni nit mënuñoo saytu ay million nit kon loolu itam nit ñëpp ay xel ñi màggat si itam nañ gën a jox ma jumaa ji xam ne fi fii jëm seen yaakaar yi àdduna ak alaaxira fa rek kon loolu itam ñu ngi ciy soññee bu baax a baax ba ca desit mooy conférence bi nga xam ne waa daaira Rawdu Rayaahiin ñu ngi ko daa organisé yàgg na man na ñaar fukki at fii na ba nag ñu di ko def nañ ko defe woon nañ ko daan defe buñ nee suba la màggal gi danañ ko organisé waat ànd ko ak mboolem tari turuqu suuf yi ci réew mi yëpp ànd ko ak jamayaatu islaam yi yëpp nañ ko daa defee noonu lañ koy defewaat ànd ko ñi ñu ko daa àndal ñëpp am na ay xalaat ay thèmes yu am sol yoo xam ne xalaat nañ ko ren def ko ci bokk na ci conférence yi nga xam danañ ko def ren it bokk na ci mooy mbas mbas mi nan la ko yoon mu dunde ak Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaay bi mu ci def ndax mbas mi kat xam ngeen dafa gàllankoor adduna waaye ci taxawaayu sëriñ bi ak taxawaayu yoon wi li Serigne Touba bi noonu wali sewaay yenn taxi day xus samaan feeñ na ci ndax benn daayira bu daa ñëw wàññi ko amut kon nit ñi le Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon ne may ma nangu xol yu nangoo gën woo wane na ne nit ñi seen xol Serigne Touba leen ko gaal ndax jamono ji metti na waaye kenn ku ci ne la nga daa def si digg Serigne Touba danga ko yokk kon taxawaay bi ci Cheikh mun Mountakha wax ne wax def ak lim ci wane ba ñëpp xam ko loola danañ ci def ay waxtaan wane it yoon wi ni ko dunde ndax xam ngeen ne ministère yu joxe misaal yu bari bari université bi misaal la ci projet yi Touba ci kanam doon def ay yeneen ak yeneen ak mboolem day yi ci yoon wi yëpp isu tarxee seen siyaar ak ay ci des yëpp benn bu ci ne wane na ne ak daayir yi ci biir kër yi sax fenn fu ci ne la nga daa def ñu ngi yokk kon wane na ñoom ni ko dundee fexe nañ ba yàqut seen diine ndax mbooleem lu leen seen suñ borom sant seen digg ak seen diini ñoo ngi koy sàmmonte waaye li nga xam ne adduna indi na ko te suñ borom wax ne atiiwu Allaah wa atiiwu Rasuul ulil amri minkum sàmmonte ne ñoom moom loolu lépp def nañ ko kon ni ko dundee loolu itam misaal moo xam ne ñëpp ko war a jëriñoo loolu am na ci ay conférence am solo yoo xam ne nañ ko daa defee ni lañ ko defee ba ca desit mooy liñ daa def buñ ne suba la màggal gi waxtaan ubbi njàngum alxuraan nañ ko daa defee amatu soppi ko gan ñi daa jóge bitim réew waa Mauritanie xam ngeen ni ñoom daaw dañoo wax wax ju am solo dañoo waxoon ne mbas mi de jàppoon na ne mën naa dox diggante yoonu Maurit ak Mauritanie waaye xamuñ ne looloo gën a dëgër moo tax jég dañ leen a jéggaloon sax ndax daaw dañoo wax ne ambassadeur yëpp jéggal nañ leen ndax bokkuñoo ñoom fuñ fuñ toll ndax ñoom ci nettooy àdduna la natt ñun nag fa lañ ma dañoo gënal loola ndax day mel ne eh, ki jàkkaarloo kii dund ci àdduna suñ borom war ko këram këram ci àjjana kooku talatut àdduna ñu itam ngërëmu suñ Tuubaa dañu gënal dund kon kuñ kuñ tolloolut foofa rek dañ la koy jégal te ànd ceeg nag jéggaloo ko ci xol bu sedd guy xam ne boo boo waxtu di ko indiwaat waaye ñoom ca président ba la tàmbalee lam daa def ko yokk ña daa ñëw ñëpp dañoo gën a dolli ko kon ñoom itam nañ leen daa terale lépp it defuñ ko dara lu weesu dàkk ci bëgg suñ Tuubaa ngeen xam ne suñ Tuubaa fu mu am kër rawat tàmbalee ko ci Tuubaa gii fee di kër suñu son bi Daaru Naar lañ ko tuddoon foofa euh, fala fala daa dara naar yi njaarim gàddu naar yi dafa amoon kon dàkk bëgg suñ Tuubaa lañ ci jublu kon mboolem liñ ci daal xam naa ne ñàkkul yu ma fàtte ndax dama ko bindut waaye lu ma ci fàtte it waxtaan yi ñuy defaat ci kanam yëpp dinaa ko def waaye ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di jaale ñi nga xam ne bàyyikoo nañ fi xam naa ne sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne moo yoroon kër gii nag mënu su ko ñàkk tudd ndax moom doone na sëkk misaal ci kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin loolu la def wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin di liggéeyal Sëriñ Tuubaa jóge ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci jumaa ja dee fekk ko foofu kon loolu mu mujj ko rafet mënu ko weesu waaye nag maamam suñ shahid am xaw ma waaye juróom wala wala maamam sax bàyyi ma kon day doom mag moo tax waaye suñ shahid ku ne xam ne xamoon na taxawaayam ci biir yoon wër ci kër Sëriñ Tuubaa ci njaq yi nga xam njaq njaareem yi nga xam ne xam ne la ca daa xew njaq yi lu kiimaan da ci am suñu Cheikh Fatak Diop nett na ko ñëpp dégg ndax ndaaye bari woon na matoon na ñett téeméer fi ko ñett saa suñ ko duyee bu ñu xëyee fekk mu jeex nee na bis nag am kenn ci magi taalibe yi ku wax ne ci daal jaaxle ndax lii daal xamul du tax ak lu ci jublu te nangul ko ci naan kooku ne naa ci naan ba xam lu tax ba mu ca naanee ñu xëy ñaq ci des yëpp jeex ba mu des boobu nee na bañ xëy nag sëñ bi woo leen tàngi jër dajale leen daa ne ana ko def lii kooku daal ne maa ko def mu daal cee teg baat bu am solo mu ne booba miim xewugut mu ne sëñ bi daan ne leen lii de boo liggéey bu doon ko defate ndax waa ahlu badri ñoo koy jëfandikoo te soxlawuñ seen des kon sëñ Tuubaa nañ xam ne lim ñu dig ci àdduna rek mboolem lim ñu dig mboolem lim ñu lim ñu dig la Cheikh Moudou Moussa waxoon bu ma téye woon kaasu kafe mu wóor ma lii kaasu kafe la mu wóor ma lii kaasu kafe la la ma Sëñ Tuubaa wax te tegaguma ci sabat moom laa gën a gëm kon loola yaqin la war a doon ci ñun ndax ba muy wax loolu kat mastaa ko fee nettali boo dafa am ku jàng waccaal bihi daariya kal madina barakata wala kaabata musora kooku mel na ko xaw a sikki mu ne ko mbaat da nga koy sikk sàkk Cheikh Moussa wax ko lii booba Touba ndax mën na ñaatu kër ndax bi ñuy def recensement bi Touba ay 1978 boo ëpp 3000 kër ñett ñetti junni kër te fi mu toll nii ci li gën a wóor mën na ñaari millions yu teyam nga xam ne kon moo tax président bi sëñ bi nga koy sant di ko gërëm ndax fi mu ko tegit mooy. man dama ciy seere ndax li siñ bi dox seen diggante maa koy def moo tax it bu ma sëñ bi ne sant ko séentuuma ci ku ma ci ŋàññi bëgg mooy ku ma ci wax dara ndax loolu amul soxla la ma ci amal soxla mooy ndigalu sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha te ñi fi nekkal sëñ Tuubaa ku fi ma sa nekkal sëñ Tuubaa bu sa responsabilité ak see ci war a wax doo ci sédd lu naq lu naqari nit ndax nit ñi kenn mënta fexe ba ñu gërëm ridan naasi xaayatun laa tudrak Cheikh Mouhamadou Moustapha bi suñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa 1927 28 élection yi njëkk am balees doon xëccoo Cheikh Moustapha moo ko jàppale fésal ko ba ba mu gañe moo ko fal kon ñooñu ñooñu gën fuuf Cheikh Mouhamadou Fadil ba Senghor di xëccoo ak Lamine Gueye fii ci soow jumaa ji ba Senghor waxee lañuy wax ñëpp ngi toog ba mu waxee boo tudd jumaa ji Sëriñ Fallu ñam kam kam sësal te loxo jël na ko de kon moo ko fal Cheikh Abdoul Ahad 1988 ba mu waxee la mu wax ci abdu Diouf wax ji jaaxal ñépp daa wax Cheikh Modou Badara jóob ne ko sama wax jii de jaaxal nañu bari daana ko xam nga ngeen wax ji lu ko indee daana ko bu li ma wax de bala ko nit ñoon xam ñëpp ñëpp maase ci bañ ko def daanaka sama kàddu gii de boo ko peese woon ak kàddu yu bindee fi ci balaas réngi ji ñëpp koy diggandoo dajale ak njabootam wax leen ne leen coow li di dafa bari lool boo élection yaa ngi sës xam daan leen xam nga lu indi coow la ñu ne ko déedéet mu ne li ma ne Abdou Diouf dana toog ñooy du fi toog mu ne waaye buñ xamoon la ma xam ne kenn du ko nattable ndax xut bu samaan ak buur suñ borom dana ko fal ñeent fukk guddi wàcce ko ci asamaan su mujj kon koo xam ne sax xam-xam ëggul wala sax xam-xam àgg ca da xam lu nit ñi xamut danaa siy nett loo xam ne ñooñu ñu ngay dund sëriñ Abu Mbàkke suñ mbuur bi xam mooy xelif suñ mbuur bi xam te di jarbaaru suñu Buxaari ak suñ xelif suñ fàllu dañoo ñëw ji siyaare si suñu Buxaari ba suñu bi daal waxee wax ja ñuy waxtaan seen waxtaan muuri ci biir oto bi bañ accès te seen teg Sëñ Buxaari di génne ci kër di julli ji nag leen ko laaj ba Sëñ Buxaari génne mel na ko leen di tontu nee na waxe Sëñ Abdulaat ji de ñu bari danañ ci wax ba yàqoo ci waaye buñ xamoon la tax ñu wax ko de kenn du ko nattable kon ñoom foofu lañ nekk Sëriñ Saliou Mbacké président Abdoulaye Wade ba mu koy fal ñëpp xam nañ ne da ko ñaar ba na ko jugal nga wuti réew mi ñaareelu at ma gis ngeen dem ci jëfandikoo li ma li yéene Sëriñ Tuubaa laa ko ñaan kon moom daa waxoon ne nag sama kilifa yi dañoo amoon ndigal wax man nag ndigalu ñaan la am waaye day jëfandiku lam la bëgg mu am Cheikh mo Cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen 2012 kàddu yam waxoon àdduna sépp ko xam leeroon na at mi weesu Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko wax ci làmmiñ ñoom ñëpp dégg te man ba ba mu koy wax maa ko njëkk dégg ne ko demal ci borobu Sëñ Tuubaa boo demee lañ fa la loo bëgg nga fas ko fa Sëñ Tuubaa dana la ko defal kon nag lu ma ci xam ci loo xam seere la ndax loo ci xam ne kat doon na lu jaaduwut ñu jëme ko ci taalibe wala ci dëkk bi bu boobaa sëriñ bi nam ko war a bañe ne la koy bañe kon loolu la ko ñëpp xam Cheikh Mouhamadou taxaa weesu na foo xam ne dana wax lu neex nit lépp lu muy wax ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa tax ak taalibe yi te moom bu dee ñun niti àdduna lañ dañoo manqué dama tade lu ne mën nañoo dal waaye moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa lépp lu xalaat weesu na lépp ndax li àdduna jariñ weesu na ko li nit àdduna mën a mën a li nit li ñu soxlaa nitu àdduna Cheikh Mountakha weesu na ko moo tax ku baax ki ci mujj gi biñ ko waxee ne ko nga doxale sa digg tubaab bi ay nit sëñ bi dane leen sama digg ñoom de kenn doyuma ci ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag mu xupp mënisuma xëpp loolu nag def na def na ko ci ki ko fi nekkal waaye nag ci moom képp la nag moom mu fi nekkal siñ Tuubaa kenn mënu koo xëpp kenn mënu koo xëpp kon nag ñu ngi ñaan ñun ñëpp nag yàlla ñu tàbbal ci biiram yóbbaale ñu ci alfulkul masfon gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def te dugal ci taalib yëpp te tàbbal ci tàbbal ñu ci adda xaltu nafsi wa jabi jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli waaw sëriñ bi nee euh, suñu bokk taalibe bi fi jógee nekkoon euh, ministre nekkoon médiateur de la république Alioune Badara Cissé nee na kenn ku nekk nga jàng Fatiha ak fukki lixlaas ak benn ñu yéene ko.